asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan rawatina waa Touba ca kanam nooru daarayni tey ñoo ngi fii ci siège tubaa Touba ca kanam nooru daarayni ngir lan ngir jébbale liggéey bi nga xam ne doon nañ ko def ci diaspora bi mu jëmoon ci eh, wàllu écran géant yoo xam ne eh, sàkk woon nañ ko ci ndigalu Serigne Bara Mbacké mi jiite massification waaye jaare woon ci sëriñ Abdou Fatah Gueye mi jiite Touba ci kanam ngir fas yéene jébbale nag loolu nga xam ne mooy wàllu liggéey boobu li ñuy def rek mooy jël kàddu gi jébbal ko euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk euh, ku mel ni sëñ Abo mi nga xam ne moo jiite relation extérieure te ndigal la jaare woon ci moom mu joxoon ko waa sous commission programme ak discipline ñu doon ko piloté ànd ak waa modération bi yëpp ku mel ni sëñ Mouride Ndaw soxna Dikkal ak sëriñ Ablaye Niang bëgg fàllu Euh, ngir bañ a gudd rek mu jébal kàddu gi Sëriñ Abo Bousso euh, ci liggéey bu am solo bi mu gaaral kàddu yi ñu mën koo teg loxo loxoy kilifa yi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki diaspora bi ñu ngi leen di nuyu bu leen jaajëfal ci di leen masaw di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi ñu jógee muy guddi Yonent bi ci jotaay bi nga xam ne euh, ñu ngi ko teewe ci ab liggéey boo xam ni seqoon nañ ko ak suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñu nekkoon diaspora bi ci réew yu wuute wuute. Euh, mu jëm ci ay écran yoo xam ne nii euh, président Abdou Fatah Gueye nga xam ne mooy président association Touba Ca Kanam ak sëñ Bara Mbacke mi jiite massification demoon nañ ba xam ne leeral ñu luyaas gi nga xam ne ñoom lañu koy luyee ci événement bu ñëwee li muy côté Touba Ca Kanam ñu xam ne suñ Touba suñ borom dénk na ko ñaawat goo xam ne lépp luñ song rek ma nañ koo daanee ñu sàkkool ñu ay écran muy lim boo xam ne ni macha allah biñ ko euh, sàkkoo ak bi mu bi mu sa bi mu jàppandee lu lu lu la. di jaajëfal mbokk yi ñu ko seqal ko mel ne suñu am su liggéey bi nekk Espagne euh, bokk ci massification di jàmbaar lool ci liggéey bi booloon ñoo mbokkum taalib mu ñuy wax suñu Abdou Khadir euh, Ka nekk Allemagne euh, nga xam ne moom lañ togtoon écran yëpp mu ñëw ba ak Sénégal ñu jébbal ko tey jii nag moom bis bi nga xam ne ñu ko doon jébbalee waa xam ne mooy bi ak mbooleem ñi xam ne ñoo jëri continent yi nga xam ne teew fi ku mel ne suñu Khadim Thiane mi ngi fi teew ñenn euh, ñi nga xam ne ñoo jóge Abidjan sëñ Cheikh Diaw jóge Espagne teewal fa jaajëfal ñi xam ñoo jiite commission yëpp nag mel ne Baye Serigne Gueye mi jiite commission Europe bi ak sëñ Saay bu Sekk mi nga xam ne moo jiite Amérique sëñ Amady Wade bi nekk Asie ak mbooleem ñi xam ne ñoo nekk ci ci diaspora bi ca seen ñax dugg ci écran yi ak ñi nga xam ne amoon nañ yéene joxe ci seenu ñax ci suñ borom dogal euh, xataay ak jamono ak ñi nga xam ne euh, indi nañu ay écran ñi xam ne dañoo joxe xaalis ñëpp ñu leen jaajëfal ci xam ne Sëñ Tuubaa la ñu doon liggéeyal agsi na incha allah écran yi fa suñ koy ne jëbbal waa Mouscazon ñu def ci liggéey bu mucc ay boo xam ne daañu wane li nga xam ne mooy réalisation yi Touba Ca Kanam doon def ci eh, xew-xew bu ñëwee loolu moo taxoon ñu doon sax écran yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Touba Kanam ñu ngi leen di nuyu nekk si àdduna bi rawat na waa diaspora bi yëpp nag ñu leen nuyu ci kilifa yi Touba Kanam yëpp tam la sëñ Abibu ak sëñ Abdulaat ak sëñ Abdu Fataa nuyoo boobu yi koy teg si loxo sëriñ Abo Bousso mu jàllale ko si mboolem waa relation extérieure na nga xamante ne bii massukasio ñi nga xam ne ñoo yaatal liggéey bi pour Touba ca kanam lu jëmee si màggal yooyu ñu amoon benn càkkuteef bu ndefoon ci waa diaspora bi muy ay télé si fii sañun solo ay ngir bëgg ñu toppatoon ñu ko ngir ne Touba ca kanam da ko ñu wàññil ñu ko ba luyaas bi mën wàññeeku ñu def si ay jéego yu am solo ñu ngi leen xam ne liggéey bi yegsi na ñu leen si sant di leen si gërëm di ñaan sëñ Tuubaa mi tax ngeen ko doon jëf yàlla na leen fayal boppam ngeen ngi fay mbooleem waa diaspora bi ñëpp nag ak ñi si jàpp sax te nekk si biir réew mi ndax bari na ñoo xam ñu ngi si biir dëkk réew mi dugaloon si addi ak waa diaspora bi kon ñi ngi sant ñëpp di ñaan yàlla nañu tege ngërëm sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Touba kanam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu wax te di leen ko baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di sant waa Touba rawatina ñi nga xam ne ñoo féete ci diaspora bi bitim réew ci jëf ji nga xam ne tey moo tax ñu daje fii te mooy écran yi waa massification di jëfandikoo ci xew-xew yi am ci réew mi euh, muy ay écran yoo xam ne mooy jëmmal ak euh, jox dayo stand yi nga xam ne wala bërëb yi nga xam ne Touba ca kanam dafay collecté dañ fay jaay ay carte aussi ak i carte membre di fa leeral liggéey Touba ca kanam mu doonoon jumtuwaay boo xam ne bi Touba Kanam tàmbalee rek lañu ñu xalaat ne du lu mën a ñàkk ndax Touba Ca Kanam léppam communication la te communication bi ci ëpp solo mooy li ñuy wax audio visuel mooy li nga xam ne da koy dégg di ko gis ci xalaat boobu nag kon ci la ñu xalaatee woon ndax lu ko jiitu sax dañ daan def buñ ko soxlaa ñu dem luyoo ji ko mu jóge ñu xalaat ne ginnaaw bitim réew bari na fa jumtuwaay yu mel noonu yoo xam ne amaana mën nañ koo am te du cher ngir yoo xam ne yuñ utilisé ba noppi la te mu méngoo ñun liñ soxla ñu ne kon nañ koo sàkku ci ñoom waaye seen pasteef tax na ñoom ñoo defee ko ci anam gu gën a jéggi dayoo defoon nañ ci ab audio leeral yan qualité la ñuy soxla ak yan modèle ak yooyu waaye defee nañ ko nu fawxa njort kon ñoo ngi sant waa diaspora bi yëpp di ko jaarale ci sëñ Abo Bousso mi nga xam ne moo jiite relation extérieure ak sëñ Modou Seck mi topp ci moom ak sëñ Moustapha Mbacke. mbokki jullit yi mbokki taalibe bi seetaan ak diwlu ak fu mën nekk ci àddina bi. ñu ngi leen di nuyu ci turu Touba ci kanam di yëkkati ay kàddu cant rek di ko jëme ci sunu mbokki taalibe bi nga xam ne dañoo féete ci diaspora bi te yàlla dogal liggéey bi am luñ ci itte woon muy ay écran yoo xam ne day jàppandal liggéey bi waa massification itte woowoon ko ñu sàkk woon ko ci mbokki bi yi nekk ci biti ñu def ci pastéef ak itte ba loolu ñu ko woon ñu defee ko du kawe njort loolu nag kon ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ko ca jaarale ci ñi nga xam ne ñoo jiite diaspora bi sëñ Abou Bousso sëñ Modou Seck ak mboolem kilifa yi ñu ko àndal yëpp dañ teewee jataay bi ak ñi fi teewul ñëpp ñu ngi leen sant ñoom ñëpp di leen jaajëfal ci itte ji nga xam ne am nañ ko ci ak taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci kon ci too kilifa yi di alxaaji sëñ tàkko ak sëriñ mbooleem waa Touba Kanam gépp ñu ngi sant waa diaspora bi ak fuñ waaye mën a nekk rek moo xam ko ci def ak ñaqam ak ku ko ci yéene woon a def te jot agsi ndax xam nañ ne ñëpp ko yéene kon cant gi bàyyiwuñ ci kenn ba ci ñi nekk ci biir réew mi ndax luy jëmmale Touba Ca Kanam moom mbooleem ku nekk ci Touba Ca Kanam rek xam nañ ne sa ittee kon nag ak cant rek lañ ciy wax li ci matoon a wax ñu jiitu wax nañ ko waaye fu ñu mën a ne daal ñu xam ne jëf ji agsi na ñiñ ko tegoon seen loxo andi nañ ko jaarale ko sëñ Abou Bousso ñu ko jiite ak ñi ko àndal andi nañ ko fii ci Touba ci kanam ñi ngi ñaan yàlla na ko sëñ bi nangul lépp lu ci waaye def yàlla na la ko sëriñ Touba nangul te fulal la ko te kenn ku ne suñ borom yokk la ay xéewal jàppandal sa mbir ba nga gën a mën a liggéeyal sëñ Touba ci liggéey bii ci bàkkib sëriñ ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan suñu borom yokku na ndimbal ba lépp luñ soxla woo mu jëm ci dëkk bi mu jàppandi ci barkeb Sëriñ Tuubaa